sallallahu alayhi wa sallama wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azimi juróom benneelu juróom ñetteelu bind juróom ñetteelu bind ci téere bi di alchamailu almuhammadiya di jàngale melo yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yu biir ak yu biti maanaam bindam bu rafet bakkaar mm-hmm. ak jikkoom ya mm-hmm. alayhi salaatu wassalaamu mm-hmm. ñu ngi ci ñaareelu bunt bi tolloog ñaar fukkeelu xadis ci téere bi nee na nettali nañu abu ammaar bàyyi Ammaar mm-hmm. turam mooy alxuseynu bnu xurayth mm-hmm. alxuzaaci mm-hmm. giiru xuzaacatu mooy giiram xaddatanaa nettali nañu caliyu bnu xuseyn ibnu waaqid caliyu doomi xuseyn doomi waaqid xaddatanii nettali nañ ma maanaam kooku ne nettali na ma abi hmm. sama baay hmm. abdullahi hmm. doomi abdullahi bnu buraydata doomi buraydatu qaala mu ne buraydatu saxaabi la mu ne samitu dégg abi sama baay moom abdoulahi mooy wax mu ne dégg na abi sama baay burayda radiallahu taala anhu yaqulu muy wax ne jaa dikk na salmaan sayduna salmaan alfarisiyu kay ko jóg faris fan ila rasulillahi jëm ci fi yonantu sallallahu alayhi wa sallam nekk wala nga ne kan ila rasulillahi la góor ga wax ne la in jaa qawmun bil madinati zairan amakina inni sayid al zairu dafa am ñuy wax ne boo demee madina nga ziyaare jàkkay yonantu bi sallallahu alayhi wa mu ne a ah, déedéet man ziyaare wu ma jàkka de yonantu laay ziyaare ku ñëw madina di ziyaare barab man yonantu moo ma fi indi barab yi bu dul woon yonantu hmm. duñ dol hmm. salmaan hmm. alfarisiyu ila rasulillahi jëm ci yonent muhammad alayhi salaatu wassalaam xiina qadima ba yonentu gàddaayee ba dikk almadinata madinatul munawara yathriba la tuddoon yaa ahla yathriba waaye bi yonentu dikkee lañ soppi di dëkk biñ leeralee leeru yonantu bi mm-hmm. sallallahu alayhi mm-hmm. salmaan dikk na mm-hmm. ci yonantu bi yonantu gàddaaye dikk madina mu dikk bi maayidatin akuk taabal mu indi ale taabal ale a nekk na ca moom rutabun ay tàndarma maanaam mu indi rekk benn eh, dégg nga eh, kopp wala benn bool boo xam ne ma ngi ca def tàndarma rutab nag mooy tàndarma ju tooy fa wadaaha mu daldi teg boolub tàndarma ba wala koppab tàndarma ba wala tabletu tàndarma ba tablet ba mu teg ko bayna yaday ci kanam yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa qaal yonentu ne ko yaa salmaanu yey salmaan maa haada lii lan la fa qaala mu tontu ne sadaqatun sadaq la alayka ci yow wa ala asxaabika ak ci say àndandoo alayhi salaatu wassalaam fa qaala tontu moom yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne ko irfaaha yëgati ko fa inna nun laa naakulu sadaqata duñ lekk sadax qaala mu ne fa rafaaha mu yëkkati ko fa jaa mu dellu si alxada ca suba sa bi misli kem tala kem indiaale kem la mu indi woon démb ci tàndarma fa wadaahu mu tegati ko bayna yaday rasulillahi ci kanam yonantu sallallahu alayhi wa sallam fa qaala daal di wax moom yonantu alayhi salaatu wa salaam maa haada ya salmaanu lii lumu yow salmaan fa qaala salmaan tontu ne hadiyatun lii hadiya la laka ñeel la am na lu tax am na lu muy seet moom salmaan yonentu it xam na ko fa qaala wax rasulullahi yonentu sallallahu alayhi wa sallam li ashaabi ñeel ay àndaaleem ubusutu tàlli leen tàllal leen maanaam lal leen lekk rek mm-hmm. hmm? mm-hmm. wala ubbi leen seeni loxo rek mm-hmm. ma jox leen ngeen lekk bismillah lekk leen thumma nawara topp salmaan xool ilal xaatami jëm ci xaatamu nubuwati ala nekk ci gannaaw yonentu muhammad sallallahu alayhi wa fa ca rek amana bihi mu gëm ko loolu amoon dafa am xisa wakaanate booba nekk na moom salmaan di jaam lil yahuud yi ñeel yahuud yi yahuud yee ko jëndoon mu nekk seen jaam fastaraawu daal di jënd njaam nga pour goreel ko kan rasulullahi buum ak njaam nga yonentu jënd ko sallallahu alayhi wa sallam bi kasaa ci nangam wa kasaa ak nangam dirhaman ci xaalis ala an yagrisa ci chartaab nag mu jëmbat lawum ñeel leen naxlan toolab tàndarma ñu ne ko booñu joxe nangam ci nang nangam ak nangam ci xaalis danañ la ko danañ la jaay mbuum gi waaye charte bi mooy nga jëmbatal ñu toolab tàndarma fa yaamala di jëf salmaanu salmaan di liggéey salmaanu salmaan fii ca tool ba xatta tutcima ba tool ba ba tàndarma ja ñor mm-hmm. ba joxe ñam xataa mm-hmm. tutima ba tàndarma ja mën a lele mm-hmm. fa garasa jëmbët rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an naxiila tàndarma ya illaa naxlatan ba mu des tàndarma waaxidatan jay benn garasaha jëmbët na ko Umaru Seydina Umar fa xamalat xenu an naxla tàndarma yëpp min aamihaa ci at ma tàndarma yëpp daal di am meññet walam taxmil te xenuwut hëmbut a naxlatu tàndarma joojee nga xam ne moom la Omar jëmbatoon fa qaala ba yonentu gisee loolu fa qaala ba fa qaala wax moom yonent rasulullahi sallallahu alayhi loolu Hmm? fa ba mu gisee loolu rek xaala la wax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ma sha'nu haadihi naxlati moolu dal tàndarma ji ba moromam ñëpp sax moom saxut fa qaala wax Omar Seydina Omar yaa rasulallahi yow yonentu ana man xarastuha maa ko jëmbat moom fa doon dimbale yonentu rek te xamul ne mbir mi mucjisaa ci ne ndax jëmbat tàndarma rek mu bejj ca at ma meññi ca at ma ah kooku du du ne ku ne ko mën mm-hmm. ba fa nasaaha buddi tàndarma ja mm-hmm. rasulullah yonentu sallallahu alayhi wa garab googu nga xam ne moom la omar jëmbat omar mm-hmm. buddi ko fa xarasaha daal di ko jëmbataat fa xamala tàndarma ja hëmb min amiha ca at ma hmm? seydina salman alfarisiyu mu dëkkoon ca faris doon ab majuus mm-hmm. majuus nag mm-hmm. jaamikati safara lañ mm-hmm. baayam bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo jiite woon jàngu ba ñoo daan xam bu safara si muy tàkk du fay mukk euh, ba nga xamee ne nag bés dikk na baayam am lu muy liggéeylu daal di yónni Salmaan ca tool ya ca yoon wa nag la Salmaan gis dégg nga ab église boo xam ne ay nasaraan na ca nekk mu daldi fa jàdd booba diine Isaa fi ne yonentu di ko gut sallallahu alayhi wa jàddee ca jàngu ba gis la ñuy def mu yéem ko daldi jaxasoog ñoom ba ko bàyyam yegee nag jàpp ko dóor ko ba muy bëgg a dee mu tëj ko xew ko Salman bam leen laajee lii fum mu ñu ne diina ji daal ñoom ñu ngi ko jëlee Sham bañ ko tëjee nag jàpp ko dóor ko daal di ko jëng mu fexe ba wax leen na leen lii ma dal waaye bés bu ngeen gisee mbooloo moo xam ne ñu ngi dem Sham fa diine ji jógee rek yëgal leen ma bañ gisee mbooloo muy dem fa fa diine ji jógee ñu yëgal ko ko mm-hmm. mu daldi fexe ba dagg jéng ya mm-hmm. ànd ak mbooloo ma bam demee nekk ci làbbe mm-hmm. dégg di ko liggéeyal ba làbbe ba dee mu daal di na làbbe ba newee woon ne kii daal moom daan na laaj nit ñi sarax waaye sarax si jëmutoon ci moom jëmutoon ci faqiir yi moo ko doon lekk daal proposé ab labbe boo xam ne ku baax la ndax xam na ci moom ay jikko ba kooka ñëwee mu nekk ak moom wax nañ ne Salman liggéeyal na lu tollook fukki labbe am na ñu wax loolu ala kulli xaalin labbe ba mu mujj nekkal ba muy dee dénk na ko ne ko ab yonantu dana feeñ mooy ndonooy yonant gi nga xam ne jóge na ci maam Ibrahima waaye ci arab yi lay feeñ nag Salman ba mu gisee ay commerçant yoo xam ne ñu ngi bokk ci Banu Kalbin mm. mu daal di dégg nga waxanteeg ñoom mm-hmm. booba am na ci gàtt lu bari mm-hmm. am na ci jur lu bari mm-hmm. pour fay leen mm. ngir ñu yóbbu ko mm. ca dëkk ya nga xam ne ña la ko euh, labbe bi wax wax na ko ne fi yonent bi di sallallahu alayhi di feeñee dëkk la boo xam ne mu ngi ci diggante ñaari doj dégg nga ci xur la nekk maanaam muy Madina dëkk bu bari tàndarma la it mm-hmm. ah ba mu àndeek ñooñu ñooñu xot ko mm-hmm. daal di ko def jaam mm-hmm. jaay ko demee ba ca waadil quraan ñu ne ñu jaay ko ab yahud noonu la tàbbee ci loxo yahud yi Madina eh, dafa liggéey ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ wax nañ ne ba mu déggee yow di di wax mbiram yonent yi ba mu agsee Madina fekk mi ngi ci kaw garab gi dafa daanu xëm ba mu déggee mbir ma mu daal di fexe ba dem seeti yonentu sallallahu alayhi wa sallam tegtal ko waxoon mooy ab yonentu la boo xam ne lii wane ne la du lekk sarax waaye dana lekk hadiya boo xoolee ca gannaawam ca mbaggum càmmoñ ma mandarga mi wane ne hmm. moo tëj yonantu gi ma nga fa hmm. moo tax ba mu dikkee mu indi kopp hmm. tàndarma ne yonantu bisimilah yonantu ne ko lii lan la mu ne ko sarax la yonantu daal di ko delloo ne ko ñun duñ lekk sarax benn preuve a ngi noon bi mu dellu see ne ko lii la mu ne ko hadiya la yonentu lekk jox sahaaba yi lekk mu gis ñaari preuve mu des benn bi yonentu xam ne hmm. xaatamu nubuwati gi la bëgg a gis hmm. yonentu daal di woyofal mbubam hmm. mu daal di gis xaatamu nubuwati ci gannaaw yonentu bi sallallahu alayhi ci wetu mbagg ma am na ñu ne bi mu ko gisee dafa xëm waaye ba mu ko gisee daal ci la ne laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan daal di nettali yonentu xisaam nag mm-hmm. yonentu ne dimbale leen seen mbokk mi mu gore mm-hmm. yahood yi ci seenu coxat mm-hmm. ñu laaj ko xalal joo xam ne foogoon nañ ne du jeex mukk ñu ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam dajale dégg nga ci wurus lañ laaj wala ci xaalis ba mu dajalee mu yóbbu ci patron ba ñuy teg ñuy teg ba lam lañ laaj yëpp jeex te la la ko yonentu jox mel na ni dara jogut ca ba ca des nag mooy toolub tàndarma boo xam dañ koy jëmbat ci xat mi mu ñor ci xat mi mm-hmm. yonentu sa alayhi wa sallam ne saxaaba yi nañ ko dim nañ am ku am jiw na indi mm-hmm. ñu jëmbat ñoom ñëpp tàndarma ji yëpp ñor ci xat mi mm-hmm. ba des benn tàndarma ndekete mooy tàndarma bi nga xam ne Seydina Omar moom foogoon na ni yëf yi jëmbat la rek muy dimbale yonent bi waaye ba tàndarma ja saxut tàndamay yonantu jëmbatoon yëpp sax ba mu des bosom mu xam ne ay yëf yi kon moo gise la yonantu sallallahu alayhi wa sallam di di tàndarma jooja jëmbataat ko mu sax meññi taxaat ma fakki morom ña kooku koy salmaan saxaaba bu mag a mag a mag dégg nga fekkeewut badar ndax booba ci ak njaam la nekk xare bi mu njëkk a fekkee mm-hmm. eh, mooy mooy xandax mm-hmm. waaw ndax badar ci ñaareelu atum gàddaay mi la nekk oxutit mm-hmm. fekkewut ko ci ñetteelu atam gàddaay gi la mm-hmm. booba mi ngi ci njaam gi mm-hmm. xandax nag fekk na gore na moom la njëkk a fekkee moo joxe sax pexe ma moo tax ñuy wax xandax mooy dégg nga ka pax yu wala kàmb yu mag yuñ gas wërale ko Medina booba yowati Medina ànd nañoo Quraysh def coalition ak Euh, arab yi mhm. pour bett yonent bi mhm. sallallahu alayhi ak sahabaam yi mhm. rey leen rek mu ñu diine ji jeex benn yoon xare boobu la yàlla di tudd ci suratul ahzab waaw al ahzab mooy les coalitions ah fanweeru saar ñett ci alquran yàlla di ci wax ndimbal li nga xam ne moom la dimbalim jullit yi ba faruñ sax xeex nañ koo yaakaare yoon wa kafa allahu almuminina alqitaala wa kaana allahu waaye ba nga xamee ne loolu bett na leen gaw nañ madina yonentu woo saxaaba yi ku nekk joxe xalaat léegi eh, salman ne ah, ñun de ca faris li bu ñu dalee nii lañuy def dañuy gas wërale dëkk bi nga xam ne du ñu am fuñ jaar ñu def ko jamono jooja kéemaan yu bëri yu ñeel yonent bi feeñ na ca ca gas googa ca la leen wax ca lay ay eh, leer di génnee hmm. yonentu di leen wax ne ba a ngi ñëw hmm. ngeen moom ruum bés a ngi ñëw ngeen moom faris maanaam bés a ngi ñëw ngeen yilif ruum hmm. ndax Shaam foofu yëpp ruumu la woon waaw loolu yëpp loolu yëpp dikk na bés a ngi ñëw da ngeen yilif faris loolu yëpp dikk na barab yi yonentu waxoon yëpp tey dugg nañ ci lislaam booba nag naafeq yaa ngi bëgg jaxase waaw naan maa waadana allahu wa rasuluhu illaa xururan yow ku am néeg ñax amuloo lu dul benn néegub ñax ñu ñëw euh, kattan gu toll ni Amérique ak Russie ak Chine ak Europe ak yëpp ñëw wër la pour lakk sa néegam ñax bi nga naan bés dana ñëw nga yilif leen waawaay maa waadana allahu wa rasuluhu illaa xururan ki ay caaxaan rek lay wax mm-hmm. waaye jullit yi moom xam nañ ne mm. la yàlla waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa wax dëgg la moo tax ñu gëm ko ànd ak moom yàlla dimbale leen ba bés dikk na loolu yëpp am salmaan moomu nag la borom téere bi di tudd ak ak jébbaloom di ci tuddaale it ne bokk na ci yi tax mu jébbalu xaatimu nubuwati googu nga xam ne moom la buntal fii di ñuy wax ne mooy wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mujj ci yonent yi salmaan moom la abu darda moom la yonentu defoon muy mbokkam abu darda hmm. yonentu booba ku nekk dafa am kum la seexale hmm. abu darda ku dëddu àdduna la woon hmm. waaye salmaan daf daan dem di ko wax ne ko ah mënoo julli guddi gi yëpp da ngay julli lii nelaw lii lii nga bàyyee ko sa waa kër mënoo it woor bés bu ne da woor léeg-léeg nga nekk ak sa waa kër mënoo lii mënoo lii ba Abu Darda xëyee dem wax ko yonantu mm-hmm. sal yonantu sallallahu alayhi wasallam ne ko Salmaan wax na dëgg mm-hmm. ndax sa yaram wi am na ci yow xaq mm-hmm. sa waa kër it am na ci yow xaq waxal ku nekk joxal ku nekk rek euh, xaqam sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa pour jeexal bokk na ci li tax yonantu sallallahu alayhi wa sallama du lekk sarax bu lekkoon sarax ñu tuumaal ko ndax comme ñoom moo doon mooy chef de d'état bi di dajale sarax si hmm. pour mu war a dem ci miskin yi hmm. ak ci fuqaraaw yi ak borom xaajo yi hmm. su fekkoon ne dagan na ci moom mu lekk sarax li muy màndu màndu konoon seytaan dina dugg ci xol yi jéem leenoon sikkuloo waaye moom sarax yàlla daf ko araamal ci moom moog waa këram ndax saraxkat mooy fóot sobey nit ñi te moom moo gën a laab ci li yàlla bind daraay tilim du wàcc ci moom bu ma ne sobee maa ngi ci jublu tilim rek yonentu wax na ci xaqi salmaan mm. ne innal jannata la tashtaaqu ila thalathatin hal mm. janna namu na ñetti nit mm-hmm. aliyin wa mm-hmm. ammaarin wa salmaan hal mm-hmm. janna dee namu na aliyu namu na ammaar namu na salmaan loolu nag mm. dégg nga euh, maziya gu réy wax nañ ne moog bilaal yëpp balaa ñoo faatu gis naa leen gis nañ leen hmm. ñuy rajas hmm. naan gadan nalqal ahibba muhammadan wa sahba hmm. suba rek ñu jógee fi dajak sopp yi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ay saxaabaam ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim amin